assalamu aleykum mbaɗigol millayalonkoɓe juuɓerola ngal bisimilla indi eh, vision development foundation eh, office o min ɓe cocis town diam e eh, komi aliya kalamuta ñaami vision development foundation san wo sang na ebul leader min kata alhaji mamadou tro daboti anin ala foundation o mi ka fa vision development foundation ka a juuɓele mol miliyalon ko e bulol me koɓe pour ka juuɓe mbe mum makori sifale dilere yo so eh, bi e komin benga kala muta ñaami ñin koɓi probléme o min ɓe keerin e eh, wo le kol koleyata dumandi yo but not with standing ate naata jele ko mol min ko e, eh, toña toñe bulol me koɓen makoyro min so dino wolla so tra pour ŋa wo makoyro dila so wala kendi na bi nga mulu kumandi pour isena sangol to tonya tonya nka sajol min di katale wuli jamal lem tawsan jamal nka wolle di yo bari bi komi deto kenya kammala anim fana nyin ko big problème o kenya kammala e saji keme lulu ani saji tansaba anin kononto wala distributa nyintile tili dantango konola pour kadi mola mol milialon ko ibulol me kolbe yo bari ñinan dinnaro lafta mole min faham je wole ñinti ko ñinan ning sangdol manke kilinti kati wo sandol to kobik problème o tara kering e no le sénégal ka sadiol sankana ke di mol la miliale bulol me kobe yo bari senegal sénégal tamam possible no yo bari wo be na si o ajele ko ate no la ka ka si mol la miliale bulol me kobe yo ñing sacrifice dum fanan sadalem sadami yalon ko kaake ala damman kam so wala kendina e momon nde ika e sadio minta jam fisabilillah lem iboka e butut jooje aka sanne ata kako ɗole dundije nayasan nanata acika ya diila to naya diila ifana e ya samba ila muuli e baguila ko e toñatoña ise mafego sotono salnugo fanal ci contane to wolem ganiyoti min ɓe kuwoñin kooma pour mol be sa fahamno ko toñatoña momadou touro dabo e fentagolla kuwo wolem kuwoti miyalon ka kummaya taye so wo kammala kodo men min ka duñin kunna katale million million le ka duŋa kunto yo bari o min bi do doro wolen pour ko moolu min ko ito lamiro fe moolu meje bari toña toña be saji nyola ko vision development yejele andu mamadou to dabo yejele so wala kendi nabi nata jang pour kaje ko ni surprise si wo keno te ni saji o talano ke dila yo wo kamala mool min fanam bi jambe modanta bulala pour si fem fono ñin ko mi yaalon ko ala kumaya be nyame Good morning, everyone. We wish to welcome all of you to Vision Development Foundation office in Churchistown. And on behalf of our able CEO, Mr. Momodu Truodabo, we wish to take this opportunity to thank all of you and to invite you to come and witness our this year Tobaski Ram presentation. If you, will, if you are taking notice of our previous presentation, they were in larger volume but this year, because of this COVID problem, you know, Vision Development Foundation, the management and our able CEO, Mr. Mamoru Tuodabo, has uh, provided uh, 539 uh, rams. This is intended to be distributed to the poor and the needy across the board. So this is why you know, we could not give out in our thousands as usual, but because of the COVID, because it was very difficult for him or for us to travel to Senegal and get the rams. But notwithstanding, the heart he has is a big heart, and he has seen it very, very necessary to provide this thing for the poor and needy. And of course, the intended purpose of this is to put the smile onto the face of those poor and those people who are very vulnerable. That's the reason why this thing has been provided. But again, any ram that is given out today it is, of course, at no cost to any beneficiary. We call you to come here, pick one ram, take it home, go and uh, you know, share it with your family so that you put a face, so you put a smile on their face. That's the objective of this program today. So on behalf of Mr. Mamudu Dabo, the family and everyone, we wish to thank you and on behalf of the Management Board of Vision Development Foundation, we wish to thank all of you for coming and we wish to assure you that Vision Development will remain where we are in our endeavor to ensure that the poor and needy are comfortable when it comes to this time around. So on that note, we wish to now call on some few beneficiaries to say a few words because it's raining here. And from there now we'll continue on the presentation. Assalamu alaikum. Hmm? Satour bi ak foo ñëw. maa ngi tudd ay Satour Koudia maa ngi dëkk bu maa ngi leen nuyu jërë jërëjëf. ala baraka ni ko en kontaan ya mbadu wala ko ala si sima so jata kenda ni sima ala almani la fala anni kila hormot almamma bela jarala anni kila hormot thank you very much ala baraka Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ñi nuyu NGO bi ni si turi Modou Tro Dabo ñepp xam nañ kan moy Modou Tro Dabo nit yalla la ab de gene alalam diko def fi sabilillah so ñu ko ñaanal fan ak wër ñi ñaan si suñ borom tamit yalla génneel ñu febar bi nga xamne mo nekk ci aduna bi mu daxal ñu mu dem saani ko ci tati pere bi fole fole fole fole. fele soo gisee gaada bi mu mel ni sax loolu moo tax xam nga parewut ko woon a def waaye daal mu seen daal lu miin di def la xaaral mu def ko soo loolu moo indiwaat mu defaan ni moo tax gisuloo ñu contrôle gaada bi nga xam ne nit ñi duñ bari loolu rek moo tax waaye ñu ngi koo ñaanaal fan ak wér ñu ne tamit ñu ñaanal suñu boppam fan ak wér ñu fekke ko at yu bare bare bare yàlla di ko ko mun di defloo si barki salaatul Bina nak so gisee mu joxe ko momit it suñ benn daat la yalla nako yalla yerem yërëm yàgg na di ko ko jox so bo mo ñëw tam rep seen pa bi fi ndig njaboot tamit dañ xawa tay taay kena ka kaa ngeen liggéey nawet so motax ma pic bi ni pour pa bi dig li ko gisee su de la duñ ko nang way dafa am lu waral lool yeb is more than 15 years pour diggante mag ñooñu noonu bi nga ko commencer di ko defal weeru koor ak tobaski years more than 15 years man xam naa Modou Trop Darboe man suma waay la nit ku baax la daf tey defale fii sabili la so loolu ñu ngi gërëm moom daal gërëm yàlla gërëm yonent bi aji moo daa mi la def muy def ci Gàmbi yan na ko yàlla taxaw yàgg na di ko def yan na ko yàlla doon leen muy kattanam man na xam naa ci dara ci temps yi papa man njëga ji nii jibu jaay ñoom sirif di ba dañ ma daan yónni ba ci paa bi ànd ak ñoom di dem tabaski koñ be koñ Serekunda ñëpp papa daf daan xeetali nit ñi taxaw bi bàyyam taxaw na mu ngi ko taxaw yan na ko yàlla doole taxaw yóbbu ko ca kanam mu turu daama li nga somb ak li ngay soxla yan la ko yàlla jottali ko sa papa moo dunda dafa daan ànd man ak jibu jaay ak ñoom sirif suma xol fess na waaye ñan la yalla taxaw te ñu bari la daan dimbali ci miskini muy tabaski muy aajo yalla na yalla taxaw yalla may la fanu dem mu rek allahumma salli ala sayyidina muhammad baba nke konton ne kontong iba malo alama alaye jo nte de mo dabo akala fengole chika akanso wala mo dabo ma jube ko kari fengole soto kari man fen soto ama wo jube mo lab kordal kono leyan sabanani katara sitirin jele bar wo te tebe sola minna ma dila sunkaro kono allah mani botoɗo ba allah bun kono sukuroɗo bije duulinoɗo bije fengo feŋ bije bat matna modu daabo ñanta min diila moola ama diila woto nin mo daabo ɓe mbambukan mo kan la daabola ya senea nte dem ba tentula bake par ce que ŋalonde ko mo daabo mi yalon ka ganiya seneyata amam fuari jube amam fankama jube ala fenga ma fako karimu fuaro timmanya nadila karimu fankama timmanya nadila la kadi mbel kadi fankama la nyama kadi fuaro la wala nyama assalamu alaikum ok mbe le sima bane jate kendane harje firone strone tankola moro tro da mbe sima bane jata kendal alama nyonsi ala banko kan alama nyonsi ala kabilo ka kila barkoto layla ko mo hormoto allahumma salo barakot nani fa hormoto karamul barakot salli ala muhammad atal dow kuula alfana al be al man al sol sima bani jata ken nani ñaato taala ane harje fironin kola salli ala muhammad ala baraka ala baraka Assalamualaikum. Man mangi tuda Awli si dëkk Xajaara kontaan naa si bés bi ma di ko ñaanal rek di ñaanal daama ana ko fi yàlla yàggal ana ko fi yàlla saxal yàlla may ko wér ak wér le waaw liggéeyam moom si dëkk bi moom defar na trop évidemment dañ ko bëgg a ñaanal ana ko fi yàlla yàggal saxal ko fi kontaan dañ trop jërëjëf yal na ko yàlla fay yal na ko yàlla yokk Dabo Jila mooy Modou Dabo yàlla ko yàlla fay efria Modou Dabo daf dee dimbale ñii ñi moo ko fay nit du ko mën a fay de yàlla dina ko fay efria fii leen dee jëlee xar efria man Kombe Ba Jila tudda maa ngi ministre o woog suuf laa dee liggéey waaw ko yàlla fay ku baala moo ko fay waaw ku baala ko yàlla jàppale gudal ko fan be fanam be guda mo daabo e firiya moɗo jo har e firiya ɗum de gende ɗum de gende sa taransu sa ɗum ko ɗe genede fa ñow rek mo jox ñum ku nekka ñum ñi ñi bari bari bari bari bari yépp dañoo am ñun yépp dañ dee am yépp aman soto mi yalan ko moɓi ka soto beele ka soto mo daabo alale ba joola alama o maari ay simaya simani ja tagendan kawle duwaye ala kana fa sang de mo dabo ka mol ma koy bakele han ka kontane han taranso mo bi ka bondi ya mo dabo le kan tol ma koy sango sang ama anon tenga sukurun teng ala ma o mari asiyo e jamfa fa nka duwa wala sangi keme keme keme keme mo dabo mbe kana jana hani to mbi ka bondi ha mbi ka bondi de saja ka dilale ya samba yeta ya faila dimbayali Bismillah Rahim. Thank you very much. I'm very happy with uh, Mohamed Turodawo. This is third year has given me ram. Definitely, I'm very, very, very happy. He's very kind man. I go there two times, two twice, I don't meet him. Then yesterday I went there, he took my name, then he sent to here, I come, they give me ram. I go enjoy it with my family. So I'm very happy with him. I'm, I'm very, very happy with him. Thank God. contante baake motorora kola e eh, ntata no mapura mako e sajo nyino sanyi saba njamu tabi mako la sajo la so ntata je kuna ntota ya kina nje nfuta je ndro sajo dinna so mfere naka sai kata enjoy nuna family nkontante baake baake dama kontaan demba laa dem si Modou Touré Dama eh, diis yaa moo nekk ñetti at mu ma joxe xar ma egg demba rek mu jël sama tur yónni ko fii Mega nekk rek ñu jom xaar ma ngay ñibi dem ci kër eh, so on do ko la la fajaran fajara on do ko la so ayen kumandi kunu suuta ko forum fana sina maɓe ja so gawo nara dem fana tata la nakara be do ala fa place ñu fal sa samba ñata toon ntol be do ko la ci do ko la ala baraka ya